war a mën a demee mm. mais bu buñ demee ba gis Euh, un régime bi nga xamante ni dafay tànn kan moo war a dem élection ak kon ku warul dem élection di jël des retraités yoo xamante ni euh, liggéey nañ ba retraité ñu indiwaat leen di leen jox ay post nominatifs que ne tam dafay mm. poser problème par rapport ak li nga xamante ni moom la état de di war a doxee. et aussi on dirait que ne dañoo ñàkk ay nit ñoo xam ne am nañ compétence bi de parce que suñ demee ba jëlee retraité koo xam ne euh, amaana sax pare woon na. pour lan loon def mooy xëy dem jëli pension pare woon na sax ci wàllu fonction li ni nga dem jëli ko indi ko loolu tamit mën naa ne euh, maanaam yëpp sa askan la on peut dire euh, parce que du ñàkk am na si ñoo xam ne am nañ bile compétence te mun mën nañoo tamit taxaw fa nga xam ne euh, fa la Abdoulaye Sylla teg mais boo jëlee ab retraite rek ba veut dire ne am nga ci ñoo xam ne xeeb nga leen ba mënoo leen jox li nga xam moom mooy boobu les postes en plus article 89 article 89 de la constitution et 5 de la loi organique relative au conseil constitutionnel moom dafa daal di dàq la nga xam ni euh, moom la président Macky Sall def daal di dàq euh, Cheikh Tidiane Koulibaly ndax ñi ngi xamal que ne moom Cheikh Tidiane Koulibaly mënu remplacer le juge constitutionnel Abdoulaye la ñi nga xam ne mandat mi ngi en cours mm-hmm. maanaam koo xam ne sa mandat mi ngi en cours euh, kenn waru laa mën a remplacer mais nag on dirait ko comme tantôt ni ma ko waxee rek ci wàllu article ak wàllu texte mm-hmm. jël nañ ko tegee ko de côté doxal la nga xam ne moom la politique am laaj jamono ji mi ngi ci yoonam position bi ñu ngi toog di seetaan ak génne ay article article bi lii la wax article waxul li alors que euh, moom mi ngi déroulé comme ni mu ko prévoir avant euh, que ne lii laa bëgg a def Ousmane Sonko du bokk du bokk te jamono jooju noonu ci yoon boobu la nekk. je pense que ne euh, ñàkkul euh, des des des hommes de confiance yoo lay des hommes yoo am nañu hauteur pour moom mooy euh, Sénat. Ah. tey mm-hmm. li ñu li ñu li ñu comprendre que moom dafa jël des gens yoo xamante ni peut-être c'est des hommes de confiance yoo xamante ni jàpp na ne tey li mu bëgg moom en ko ko defal man noonu laa ko noonu laa ko gisee mais mënul dem di jëli des retraités mu des fonctionnaires nekk fi ñoo xamante ni tey jàpp nañ ne ñooñu war nañu mën a def liggéey bi. Mm-hmm. muy dem di li ñoo xamante ni ils on ils ont déjà travaillé ba jël seen retraite indiwaat leen donc jàpp naa ne ñi fa taf yëpp c'est des gens yoo xamante ni ay nit ñi nga xamante ni dafa am ci ñoom peut espoir am ci ñoom yaakaar boo xamante li mu soxla moom au sein du Sénat danañ ko ko defal man noonu laa ko mën a mm. noonu laa ko a jàngatee parce que tey boo gisee ki nga xamante moom na li tax ñu jëlee ko fa moom mooy décision bi nga na ko jël pour remettre Ousmane Sonko moom mooy affiche am xëy na ku bees ku ñëwee peut dana gantal pour jox Ousmane Sonko li nga xamante moo di fiche am tey ki nga xamante ni tabu nañ ko fa Ah, ah, ci li nga xamante moom mooy remplacement Doudou Ndir jàpp naa ne xel xalaatut ne li tax ñu jëlee fa Doudou Ndir moom mu koy def donc jàpp naa ne tey li tax moom. Euh, Ousmane ki nga xamante ne mooy di président Macky Sall tabbu ñooñu c' est jàpp na ne tey li mu bëgg mm. defal man noonu laa noonu laa noonu li nga xamante ni ñoom la ñoom nit ñi nga xamante ni moom la indi au sein de ce de ce de bureau du du Sénat. et jàpp mm. naa ne tey. loolu dafay nekk loo xamante ni ma wax sànq rek dafay tilimal démocratie yu Sénégal yi dans un état de droit boo xamante ni tey bu ñu demee ba lépp li nga xamante ni moom mooy texte ak loi ñu jël ko tege ko nele jël politique jiital ko je pense que ne tey nekkutuñ ci état de droit parce que bu ñu waxee état de droit ci ay textes la ñuy ci ay loi la ñuy ci ay règlement la ñuy mais tey bu ñu demee ba tey juge jël li nga xamante moom moo di jugement génne ko jugement boobu noonu nanguwuñ ko jëfee ñu jël li nga xamante moom moo di politique teg ko ci kaw li nga xamante moom mooy justice finalement on on pose la question on est dans quel pays donc jàpp naa ne tey li pour fexe ba li nga xamante moom moo di candidat am nekk ci dans des conditions yu meilleures yoo xamante dina ko permettre mu gagner élection présidentielle il est toujours dans ce combat là et jàpp naa ne tey li nga xamante moom bi la ak société civile ak i tamit euh, électeurs yi aussi am nañ ci li nga xam ni euh, moom mooy euh, part de responsabilité ndax ñëpp rek ñoom la daal di ëmb waaye tamit comme ni nga ko waxee tantôt moom nag si la moo daal di àddu ci nomination Cheikh Tidiane. Koulibaly foofu nañ ca conseil euh, constitutionnel ndax mi ngi xam leen Cheikh Tidiane euh, Koulibaly nekk ab magistrat à la retraite a euh, nommé au conseil constitutionnel à la d'Abdoulaye Sylla récemment nommé à présidence de la Sénat il prête serment lundi ainsi que les nouveaux membres de la Sénat voilà Il est euh, manifeste que le président Macky Sall n'a nullement euh, l'intention de retirer son décret irrégulier ndax moom am na liggéey bu am solo boo xam ne euh, fas yéene na ko cee def daal di yóbbu loolu le mbir foofu noonu ca cour suprême mais nag la mu xam ne mooy que il manifeste que le président Macky Sall n'a nullement l'intention de retirer son décret irrégulier celui qui a déclaré ne pas se présenter à l'élection présidentielle décide de choisir et d'imposer son remplaçant la la place du Euh, comme ni ñu doon ko wax tantôt rek euh, ci mbirum euh, Amadou Ba mi nga xam ni moo nekk kan daw président Macky Sall mais ak lu ñu mënti ak lu ñu gis nii rek on dirait que ne dafa bëgg maanaam remplacer wala mu indi fii ki nga xam ni moom mooy Amadou Ba di koy imposer peuple sénégalais mu ne c'est une déclaration de guerre de delà le recours qui va être incessamment déposé contre son décret les démocrates doivent se mobiliser pour prendre pour défendre la République et l'état de droit voilà moom nag loolu xam ne comme tantôt ni mu ko waxee ci la nga xam ne rek bëgg na ko yóbbu foofu noonu euh, ca cour euh, suprême euh, daal di neenal décision yi nga xam ne wala décret yi nga xam ne président Macky daal dina koy signé moom nag ki nga xam ne moom mooy Ndiaga Sylla nekk ab expert électoral ma ngay woowa sëkk rek ñi nga xam ne dañu wooye seen bopp que ne ay démocrate lañ waaye itam ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel réewum Sénégal rawatina état de droit ak république maanaam li nga xam ne mooy wàllum démocratie ñu daal di ñëw rek daal di ànd ak moom Euh, ca boobi li euh, mbir mi wéetul benn yoon euh, ca mbir moom lii ndax ki nga xam ne moom mooy Ngouda Mboup aussi daal dinay àddu jëm ci loolu ndax mi ngi xamle que ni en vertu des articles 89 de la constitution et 5 de la loi organique relative au conseil constitutionnel Cheikh Tidiane Koulibaly ne peut pas ne peut remplacer le juge constitutionnel Abdoulaye Sylla dont le mandat court jusqu'à jusqu jusqu'au 5 euh, décembre 2024 en vertu euh, des articles 89 de la Constitution et 5 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Le juge constitutionnel Abdoulaye Sylla ne peut siéger à la Sénat car le président de la République ne peut abréger voilà, le mandat d'un juge constitutionnel. Ces décrets de nomination sont inconstitutionnels, illégaux et portent une atteinte euh, grave à l'intégrité du processus électoral Ngouda Mboup moo daal di xamle euh, loolu la aussi daal di ñëw sóobooy tamit xamal président Macky Sall article yi nga xam ne moom mooy euh, firndeel que ne Abdoulaye Sylla mi kat waru nekk foofu noonu ca Sénat waaye tamit xamale ko nekk article yi kat mooy firndeel que ne Cheikh Tidiane Koulibaly mënul nekk foofu noonu ca conseil constitutionnel est-ce que yile article ñoom dinañ bàyyi xel que euh, li nga xam ne jot nañ koo gis on peut dire que ni euh, article yi texte Euh, kenn euh, lijjanteetu ko mais lépp loo xam ne rek gis nañ ne kat lii euh, dafay daal di doxal seen politique bi ñu bëgg a def waaye tamit ñoom dañ koy daal di parce que loolu lañ nemmee ko depuis le début surtout sur le cas de Ousmane Sonko bu dee moom la daal di concerné te la nga xam ne gis nañ ko chamboulement foofu noonu ci conseil constitutionnel ak fii ci Sénat dafay xam que ni kat bànqaas yooyu la yëpp rek am na loxo boo xam ni daal na jël yëpp daal di koy ñëpp que ça ci Sénat mi nga xam ne. Euh, organe la boo xam ne ci organisation élection yi pendant avant pendant et après. ci la bokk conseil concerné mi nga xam ne. Euh, kii nga xam ne moom mooy euh, Abdoulaye Sylla moo nekkoon septième euh, charge bi voilà léegi nag du ki nga xam ne moom lañ fa yóbbuwaat Cheikh Tidiane Koulibaly kooku yi tamit on peut dire que dañ ko jël ngëpp ko ci loxo kon am nañ fee loxo am fee kon kooku noonu ku mën a wax que ne kat élection yu transparente yu inclusive yu libre mooy am foofu li la moom mën naa ne peut-être da ngay wax nii rek mais yeggaguñ ci la nga xam ne moom mooy bañ gàcce ga yeggaguñu aussi ca 25 février 2024 kon li ni mel il est temps que l'opposition Euh, daal di xeex li ni mel waaye tamit euh, daal di àddu ba ñi nga xam ne teg nañ leen fa que ça soit Cheikh Tidiane Koulibaly ak Abdoulaye Sylla ñu daal di leen fay jëlee euh, daal di fay jëlee indi fa kenn koo xam ne au moins ku neutre lay doon kenn koo xam ne au moins publique bi xamagu ko mais ñi nga xam ne tudd nañ leen on peut dire ne public bi xam nañ leen wala xam nañ aussi tam li nga xam ne mooy seen ay jaar-jaar kon nekkuñu ay personnes yoo xam ne war nañ leen mën a jox li nga xam ne moom mooy confiance daal di gëmm suñu gët xam ne kat tey élection yi libre dina am waaw je pense que euh, li nga xamante ni moom mooy euh, euh, Ndiaga Sylla li mu li mu wax nguud ak a nguudam je pense que même mu Ndiaye mu Ndiaye Cissé def na ci benn communiqué avant avant ci avant hier ñoom ñëpp récuser nañu li nga xamante ni moom mooy bureau bi nga xamante ni moom mooy les douze membres du du du Sénat et je mm-hmm. pense que ne c'est c'est c'est légitime xam nga yaa ngi wax texte texte léegi voilà texte yi le président Macky Sall mi leen nommé foofu moom moom moo gën a maîtriser texte yi mm-hmm. moom moo xam ne li nga xamante ni def na ko texte yi mayu ko ko mais li ma wax sànq moom c'est que on est on est dans un état de droit boo xamante ni dañoo jàpp ne amatul droit parce que un état de droit dafay basé wu ci ay textes basé wu ci li nga xamante ni moom mooy ay législation ak ay règlement mais bu ñu demee ba jël textes yooyu dañ teg ne leen indi politique ci kaw li nga xamante ni moom mooy mm-hmm. moo la gën a xam ne ñi nga xamante ni teg na leen foofu noonu. texte yi mayu leen à ce que mu élire leen ci li nga xamante ni moom mooy le nouveau le nouveau membre euh, euh, bureau di di di Sénat. Mm-hmm. mais il l'a fait parce que jàpp na ne ñooñu li mu bëgg xëy na ñooñu mën nañ ko defal li nga xamante ni moom la moom la moom la bëgg au niveau yaa ngi wax sànq également avec euh, li nga xamante ni moom mooy le juge du au niveau du conseil conseil constitutionnel Cheikh Tidiane et je pense que ne tey bu ñu ko bu ñu ko indee au niveau du di di Sénat également remplaçant am ñëpp xam nañ ko xam nañ jaar-jaar bi nga xamante ni am nañ ko am ah, seen neutralité ça reste à désirer tey mm-hmm. bu ku ci nekk fi nga jaar ak li nga xamante ni am nga ko affinité ak li nga xamante ni mooy le président Macky Sall buñ leen buñ leen buñ leen buñ leen euh, nga xamante ni moom moo di Sénat indi keneen ki fi nga xamante ni moom mooy moom conseil constitutionnel euh, te ñu jàpp ne Sénat moom mooy euh, premier maillon bi nga xamante ni dafay bokk ci processus électoral bi du début à la fin ci li nga xamante ni moo di conseil constitutionnel moom mooy le seul organe habilité bi nga xamante ni moom mooy joxe li jëm ci verdict élection présidentielle Hmm. mais finalement bu fekkente ne ñaari ñaari ñaari ñaari organisation yooyu yëpp c'est des hommes de confiance de Macky Sall ñoom ña fa nekk mais ça reste à désirer que ne danañ am une élection présidentielle boo xamante ni élection bu transparent lay doon élection bu équilibrée élection bu inclusive donc loolu dafay tey xel dès li nga xamante ni mooy départ élection présidentielle bi et je pense mm. que ne tey comme li ma doon wax sànq rek dafa nekk un combat déjà gagné avant que sax ñuy dem ci li nga xamante moom moo di arène bi effectivement loolu la ñuy di yaa nemmeeku jamono ji voilà nag mu daal di remplacer euh, monsieur euh, du Ndir moom mi nga xam ne moo nekkoon euh, président du Sénat depuis 2011 ba 2023 bien vrai que ne ni am jeexoon na depuis 2017 waaye nag moo war a moo continuer woon di nekk foofu noonu ca Sénat moom naka daal dinay wàcc ci ab décret boo xam ne euh, président Macky Sall moo ko daal di signé Abdoulaye Sylla euh, nekk euh, Pape Abdoulaye Sylla ki nga xam mooy Ndiaga Sylla nekk ab expert moom itamit daal di contesté nomination yooyu li ba tax na sax mu wax ko daf ko yóbbu mbir moom li cay cour suprême ba sax ki nga xam mooy Ismaïla Madior Fall mhm. doon na ko attaqué ne ko amoo qualité pour agir ci loolu li ba tax na mu ngi doon woo sax ñi nga xam ni ay démocrate lañ maanaam ñi nga xam ne c'est c'est un juriste Ismaïla Madior Fall actuellement moom <laughs> dafay dafay dafay wax lépp lu muy wax c'est pour plaire au président Macky parce que mm-hmm. un éminent constitutionnaliste juriste euh, tey koo xamante ni peut-être ñu ci bëri tey jaar de l'université bu ñu demee bay dégg ci yenn ci kàddu yi nga xamante ni mu ngi koy mu ngi koy wax mooy li ñuy wax rek souvent que ne euh, politique des fois daf lay dugal ci loo xamante ni euh, da ngay dem ba dootoo xamante dootoo xamante nit ki mais ku xam Ismaïla Madior Fall tey bu ñu déggee par rapport ak li nga xamante ni daf mu ngi dañuy dañuy posé wu la question ñi mu doon jàngal li mu doon doon jàngal est-ce que c'était c'était c'était une réalité ci ci ci moom. voilà mi ngi doon nag Ismaïla Madior Fall nekk euh, ancien euh, ministre de la justice jamono ji nag mu nekk ministre des affaires étrangères et des sénégalais euh, de l'extérieur voilà ñu doon waxtaanee ci mbirum Abdoulaye Sylla Momili ak Cheikh mi nga xam ne jamono ji moom itamit foofu noonu ca conseil constitutionnel daal nekk mu nekk ab magistrat la retraite maanaam retraite na mais président Macky jël fa mu nekkoon. indi ko ca conseil constitutionnel voilà loolu lañ fi euh, dal di euh, nemmeeku Ngouda Mboup aussi nee na ay yoo xam ne dafa dàq Abdoulaye Sylla <coughs> ak Cheikh Tidiane Coulibaly l' essentiel mooy que article yi mi ngi ñëw mais n' empêche rek euh, ñoom daal ña ngay dese ni te ndiki lundi la ñoom ñëpp di prêter serment que ça soit Cheikh Tidiane Coulibaly Abdoulaye Sylla ak 12 membres yi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ca Sénat ndiki lundi incha allah parce que ñi nga xam ne que ne ñoom mënuñoo commencé seen liggéey tant que demuñ ca conseil constitutionnel prêter li nga xam ne mooy serment te loolu leen di ki euh, lundi incha allah lay daal am léegi nag bu amee ñoom nag respectivement ñoom ñooy doon li nga xam ne moom mooy euh, président bu euh, Sénat Abdoulaye Sylla ak douze membres yi nga xam ne ñoo nekk foofu yi ca commission électorale national autonome léegi nag bu jógee foofu dañuy daal